liñ ma laaj nag tey ma wax si mooy mbirum ñaari tur yi dafa fekk ci gannaaw si élection présidentielle yi ñun jógoon nañu déjà ba bind ci benn téere daañ leen ko jox mooy téere bi euh, waxoon ni il faut président bu fi war a falu nga mën a ñëw tabax fi lu ñuy wax politique de la famille parce que si biir téere bi ñu ngi leen di wax ni li xew ci euh, addina bi ci li ñu gis parce que suñu liggéey ci bitim réew mayoon nañu ñu xam loo xam ne mu ngi ñëw ci li institution yi di def loolu moo ñu poussé woon ñu anticiper mat na sax presque fukki at ci cadre formation bi ñuy defal fondation Hébert les jeunes leaders politiques dañ leen doon wax waxu famille parce que gëm nañ ni dañ leen doon wax du ngeen xaar ba nekk président di soog a xalaat fu ngeen war a jëm réew mi te benn ci ceslaayu réew mi mooy famille te famille baa ngi tas famille baa ngi yàqu ci élection présidentielle nak ñu ñëw wax leen ci li ñu xamoon ñun ñu leen ëllëg fi famille yi jëm mooy famille yoo xam ne ay concubinage moo fay nekk ay hétérosexuel ay homosexuel famille monoparentale kon laaj na ñu jéem a xool naka la ñuy def kon ñun actu woon nañu loolu moo taxoon ñu bind mbir mi loolu moo tax Serigne Cheikh ni nañ ci wax euh, ndax ñun bi ñu tëralee famille dañ ko définir euh, comme ay anthropologue lañu dañuy définir ñun position Lévi-Strauss la wax famille daal sëy moo koy lal famille dafa am lu muy bañ parce que société bu nekk li ñuy wax dafa am ay interdit te premier interdit mooy inceste waaye jur du ànd ak njabootam te tey gis nañ ci réewu société occidentale yoo xam ni nee nañu léegi loolu dootul dootul déli kon ñun ci biir àddina bi lañ bokk li nekk ci àddina bi faaw dana am fu mu porox ndolloo ñëw fii lenn rek moo ni ci mën a génne mooy ñu taxawal une politique de la famille te Sénégal amu ko ñu loolu taxoon ñu woote woon ci présidence euh, élection présidentielle pour ñu tëral ko li ñu doon wax nag effectivement dafa dëpp ak li suñu culture wax dafa dëpp ak li suñu diine wax mais li wóor di wóor xëy na duñ ko xóotal fii mais li ñu am ci ay information li ñu am ci ay données yàgg nañu di wan ni effectivement am na institution yoo xam ni ñoom pour ñoom droit lañu ko teg Euh, ñu ni leen am ngeen droit def ko ci seen réew mais réew bu nekk aussi dafa am nu mu tëddee même réewu tubaab bi am na ñoo xam ni ànduñu si bés da ngeen di gis ñu leen conservateur yi conservateur yi mooy ñoo xam ne ñoom ànduñu ak modèle libéralisation bi am. kon ñun fii tey Sénégal war nañ koo xayma gëstu ko institution internationale bu fi ñëw duñu liggéeyal tamit dafa war a dëppoo ñun li nga xam ne loolu mooy suñu ay soxla euh, dëgg la am na ay financement yoo xam ne yàgg na di am. dañ lay wax ni ñoom dañ leen ci beral cër dugal ko ci biiru mbiru euh, droit de l'homme man institution yi ma ci xam dama leen wax ni leen yéen euh, ñun de affaire loolu yàgg na am ci société bu nekk am na ay góor jigéen mais am na nu ko société bi daan gérer les boppam pour régler ko mais yéen su ngeen ñëwee tey bëgg ni dañ dañ leen noot kon yéen a leen di xeexal parce que dañ leen di noot est-ce que gis ngeen benn jigéen bu jóg ni leen man lii laa ba tax ngeen ni da ngeen koy financer loolu am na fi. kon dafa jot xëy na si biir cadre bi muy yeneen cadre ñu continuer interpeller état du Sénégal ak gouvernement du Sénégal pour mu gën a bàyyi xel ci ci mbir moomu te loolu li koy leeral rek mooy nga tënk ko léegi nag document boo mënti gis xam-xam moo koy lal li fi sëriñ Madialis wax léegi dafa génn ay indicateur indi ay génn ay statistiques il faut nga génn ay données yu la wan ni la yow sa réew lii ak lii mi ngi fay am jarul xëy na xuloo bee ŋaayoo bu rëy bi mais su fi man politique nationale à rek dana am fu ñuy jaar bu partenaire au développement bu fi ñëw da obligé politique nationale bi Sénégal mais le fait que amul politique nationale sur la question de la famille loolu moo tax dafay ubbi à toutes les dérives possibles kon ñun li ñuy laaj mooy réinterpeller waat état bi d'ailleurs ñun partenaire bi ñu doon liggéeyal ni pour bu Sénégal programme Nations Unies pare na pour bu fekkee Sénégal dafa bëgg tabax une politique de la famille ñoom nar nañ ci dugal seen loxo ànd nañ ci xëy na jot gi moo ko may mayewul mais ñoom waxoon nañ sax dañu war dem ci président de la république jébbal ko document bi won ko ni ko ñoom daañu koy jàppale su fekkee bëgg na Sénégal bëgg na pour ñu taxawal leen une politique nationale de la famille politique nationale la bu koy dugal ñi ko war a saytu ñoo ci war a ànd ni ñun fii lañ bëgg suñu njaboot ëllëg dem fa bi mode famille lañ bëgg parce que wax nañ ko pétrole baa ngi matériel mais xalaatuñu ba doomu aadama lañ fi fekk loolu yëpp ci politique nationale bi koy koy tabax euh, ñuy wax déstabilisation déstructuration société bi euh, lañ jëm bu ñun parce que euh, nañ ubbi suñu rek li xam xew ci pays du nord yi xam ne la waaye pour mu bañ day fekk yow euh, ki euh, defaral nga sa bopp fagaru nga fagaru nga te fagaru bi mooy lan mooy nga xaatim ni man lii laa bëgg fii laa ko jëmi ni laa koy jaare ñi ko war a wax wax ko ñi ko war a seq wax ko kon jot na léegi ñu mën a interpeller gouvernement du Sénégal mu woo ñi ci war a bokk ñu def une politique de la famille bi nga xam ne xëy na mooy suñu fii ñuy jëm bi si vingt ans di si cinquante ans ci loolu la ñu tënk asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu